tàmbali nag dama bëggoon euh, présenter ñi nga xamante ne ni ñoom laa bokkal podium bi euh, bokk ñoom coalition bi donc je vais commencer par le professeur euh, Ibrahima Thiam qui est professeur de mathématiques qui est avec nous dans cette coalition le professeur Souleymane Astou Diagne qu'on ne présente plus Awa Bari qui s'occupe euh, de la commission féminine et le major Kandji qui est tout aussi membre fondateur de cette coalition Euh, li nga xam ne moo ñu ti tey nag c'est pour ñu waxtaan ak sénégalais yi parce que juróom benni weer bëri na ci ku yor nguur Olof Njaay dafa ne cin bu naree neex bu baxee xeeñ waaye dafa mel ni lii bax ci cin bi xeeñul neex li ko waral nag mooy nit danga koy jàppee ay kàddoom ndax kàddu kese moom la leen sénégalais yi wóoloo ba fal leen te lañu waxoon ci seeni kàddu yépp gis nañ ci lu ci bëri tey wan na ginnaaw seeni kàddu benn mooy nomination yi nga xamante ni nii dañ ne woon les hauts fonctionnaires dañ leen di nommer suivant des appels d'offres bañ ko waxee ne woon nañ leen ah loolu de tey na xel te jamono wan nañu ne lañu ñu waxoon defuñu ko ci loolu beneen bi newoon nañ buñ leen joxee réew mi ñaari weer ñu teg réew mi ci yoon te boobu ba tey jafe-jafe la sénégalais yi dëkkee li nga xamante ni nii nag moo ci topp te xam naa ni moy moytu mooy question bi nga xamante ñu bëri dinañ ko laaj mooy lan moo tax ñun ñu tuddee suñu coalition jubbanti Sénégal dafa soxla jubbanti président de la république ci boppam moo ne. jub jubal jubbanti moo ko yëkkati waaye ñun dañu jàpp ni moom xamul lu ñuy jubbante xamul luy jubbanti te mënta jubbanti parce que su mënoon a jubbanti tey finance publique yi fi ñu mu toll fii ci Sénégal duñ fa toll parce que yéen ñëpp gis ngeen rapport bi nga xam ni moom la FMI def ne suñu ay recette dafa dellu ginnaaw de 17 pour cent maanaam la Sénégal daan am ci ay recette amatuñ ko lu waral loolu dañoo yor réew mi xoqatal ñi nga xamante ni nii ñoo ne ci réew mi def fi seen xaalis di fi liggéey jël fitna teg ko ci ñoom ba ñu ci bari ci ñoom génn nañ jël seen alal yóbbu feneen di fa liggéey li nga xamante ni ni bokk nañu faral leen moom mooy xëyu ndaw ñi ñooñu nga xam ne ñooy investir seen xaalis ci réew mi di fi liggéey non seulement ñooy tax réew mi am koom waaye ñooñu ñoo mën a créer ay emploi ñoo mën a jël xale yu ñuy liggéey géej gi fees na dell sénégalais yaa ngi dee ci géej gi comme ni ñu daan deewee ci géej gi daaw ak daawaati géej kon li fi newoon jugu fi ba tey nguur gi wanewul benn yoon ni xëyu ndaw ñi intéressé nañ ko amul benn jéego bu mu jël pour régler xëyu ndaw ñi amul benn jéego bu mu jël pour wàññi dund bi dund bi cher na kilo soble mi ngi ci neuf cent kilo ceeb sept cent cinquante kilo carotte trois mille francs ci miim réew ñu am suuf am naaj am ndox loolu yépp dafay wane ni jubbanti Sénégal laaj na leneen lu dul ay wax ak i coow xuloo ŋaayoo te it mu am point boo xamante ni nii doon point bu sensible boo xam ni Sénégal ñëpp dañu ci naw muy diine yi këru diine yi ak église bi maanaam laïcité ñoom nag dem nañu ba gëmloo ñi nga xamante ni nii seen njàng soriwul ni laïcité mooy jàppale góor jigéen waaye laïcité du loolu de laïcité mooy ku ne fa nga ne tant que sénégalais nga nekk ci miim réew la nga gëm sa diine nga mën koo topp te kenn du la ci xoxatal loolu mooy laïcité réew moo gis ñu jël diine di ko fowee rek ci guerre lay mujj moo tax may lancer appel murit yi ndax dégg naa ni dañoo bëgg a marche dama leen di ñaan ñu bàyyi marche bi xam nga lu tax ndax lii mbiru politique la te politique moo koy régler nañ ko bàyyi ñun ñu régler ko parce que tey bu ñu xëyoon di marche police dal seen kaw boo moytuwul Sénégal guerre civile moo fi am te ñaan nuñ ko yàlla Sëriñ Tuubaa liggéeyu ko fi Alaaji Maalik liggéeyu ko fi amul benn këru diine bu ko fi liggéey du bàyyi ñas du El Hadj Omar Foutiou Tall du El Hadj ñii dañ ñoo woo ci politik dañ leen di wuyu ci politique ngalla na kilifa diine yi toog nañu wax taalibe yi ñu toog ndax fiñ ñiy woo bu ñu leen fa fekkee dina tas dëkk bi parce que dafay ndiroog dafa am loo xamante ni nii moo lalu ci suuf lu ñu waxagul nit ñi senegal baaxoo nañu diine baaxoo nañu tarixa baaxoo nañu ku ne ca la nga nekk nga nekk ci ñu gaarantiir la nga mën a topp sa diine jaamu yàlla ni nga ko bëggee loolu mooy laïcité te loolu waruñu ci dellu ginnaaw benn yoon ndax loolu mooy jàmmi réew mi beneen bi nga xamante ni nii moom moo ci topp te ñu war koo jubbanti mooy suñu assemblée nationale assemblée nationale sénégalais yi la fi nekkal sénégalais yi nag dañoo bëri te wute am na ñu jàng am na ñu jàngul am na ñuy liggéey am na ñu xam am na ñu xamul am na ay uude am na ay mason am na ay artisan am na ay menuisier am na ay nappkat mais bi Sénégal nekkee Sénégal ba tey amul benn assemblée nationale boo xamante ni nii ñooñu représenté nañ leen ci assemblée nationale bu mu mel ni bokkuñu ci réew mi géej dafa yaatu kan moo mën a xam li ci biir géej keneen ku dul mool bi nga xam ni mooy xëy di dem géej xam li muy jàkkoonteel mosu am assemblée nationale bu am mool ndax dañ leen a xeeb ndax jànguñu la ñu wax mais ñoom bu ñu xëyee demuñu géej du ñu lekk jën te Sénégal ceebu jën la ñuy añee bis bu ne kon lan moo war a mën a tax mënuñu considérer corps de métier yi nga xamante ni nii ñoo yor économie Sénégal ñu jël leen di leen woowee informel te jéemu ñoo xam naka la ñuy def ba ñu di liggéey di indi koom di dundal sénégalais yi mën a bokk ci économie bi nga xam ne moom la ñu tuddee formel est-ce que du informel boobu ñun moo war a nekk sur la base de notre économie bu doon question boo xamante ni nii ñi waxuñu ci te it ña ngi koy yàq ndax la nga xamante ne ni moom lañu am mu mën leen a permettre ñu liggéey liñ fi fekkoon naam néew na yàq nañ ko ci wàllu napp gi artisan Sénégal yi Sénégal administration am ñaata bureau la ñaata ministère ñaata direction mais lan moo mën a tax waruñoo jël lu toll ni 30 pour cent wala cinquante pour cent ci commande yi état bi di def jox ko artisan sénégalais yi bureau bureau la taabal taabal la xanaa duñ ma ne Sénégal amul menuisier yu mën a defar taabal ak ay chaise loolu bokk ci li nga xamante ni nii moo war a jubbanti Sénégal indi koom ci réew mi te defuñu ko. kuñ fi fal ministre booy jënd biro da ngay dem jënd lu ñu importé kon ñoom ci seen bopp ñiy wax consommer local ñoom ci seen bopp gëmuñu ko ndax bu ñu ko gëmoon fa la ñuy commencé ndax bay ci sa weewu tànk la olof njaay wax loolu di beneen aspect boo xamante ni ni ñun bëgg nañ cee indi ay jubbanti bëgg nañ koo jubbanti artisan sénégalais yi dañu war a am quota ci commande bi nga xamante ni moom la état bi di def dañ leen a war a représenter assemblée nationale parce que assemblée nationale dafa war a nekk emanation war a nekk image u sénégalais yépp sénégal bu ne gis ci sa bopp ndax la nga xam ni moom la ñuy dem di fa ñoom la concerné kon waru ñoo jël ñoo xamante ni xamuñu dara ci sénégal jël ñoo xamante ni xamuñu dara ci mbay bi jël ñoo xamante ni xamuñu dara ci napp gi jël ñoo xamante ni xamuñu dara ci xale yi jël ñoo xamante ni xamuñu dara ci li nga xamante ne nii mooy suñu diine di suñu aada di suñu cosaan te ñu lal ci suñu culture ñu leen di yóbbu assemblée nationale ñu ne fa di xeex di xuloo di saaga di wax lu ñàkk fayda di défendre ñi nga xamante ni nii ñoo leen fa teg alors que sénégalais yi la ñu war a défendre ndax assemblée nationale mooy gouverner. li tax assemblée nationale di gouverner mooy président yoonu ko jiital te assemblée nationale fa la ñuy voté loi yi fa la ñuy defaree yoon kon assemblée ci boppam. mooy gouverner te sénégalais yi dama bëgg ñu xamantee ko noonu ñu xamee ko noonu te jubbanti image bi nga xam ni moom lañ leen jox ci assemblée nationale pour ñu fay dem di xeexal diw wala ñuy xeexal keneen assemblée nationale pour xeexal sénégalais yi la pour ñu mën a seetal seen xeexal sénégalais yi nag il faut que tous les sénégalais soient représentés ci ñun ci loolu la ñuy dox fexe ba assemblée bii nga xamante ni moom la ñu bëgg a teg mu doon assemblée boo xamante ni assemblée buy représenter tous les sénégalais quel que soit leur corps de métier loolu doon loo xamante ni soxal nañu trop ñun nag dañoo jug pour defar juguñu pour yàq te Sénégal mi ngi yàqu te buñ ko seetaanee ci tàq la jëm te je pèse bien mes donc ñun coalition jubbanti ñi ngi woo ñëpp tëjuñu suñuy bunt am na ci ñun ñoo xamante ni ay nappakat lañu am na ci ñun ñoo xamante ni ay bat ay baykat lañu waaye fépp fu nit mën a nekk ci Sénégal te Sénégal ñor la nga bëgg a jubbanti Sénégal ñi ngi lay woo nga ñëw ànd ak ñun pour ñu liggéey ñu jàppale leen ñoom ci seen bopp ñu dem assemblée nationale di fa xeexal seen bopp di fa xeexal seen corporation di fa xeexal seen corps de métier di fa xeexal seen gëm te bañ taxaw di xuloo ka ŋaayoo ka xeex ak ay politicien te ñu bàyyi politique bi ndax politique bi mu ngi bëgg a yàq réew mi loolu je pense que moo nekkoon tey li nga xam ni moom laa bëggoon wax comme propos liminaire par rapport ak li nga xamante ni nii moom la ñuy def en wolof maintenant je vais passer au français